Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de oui du like, merci de oui du abonné, merci également du bail commentaires, surtout Gaël hein. di bës ci de notification bi pour jot vidéo hein. ah di comme d'habitude mbokki sénégalais yi nekk ci hôpital yeeg ci kër yi feebar suñu borom yàlla na fëgg seen bopp ñu wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi suñu borom génn leen ñi également ñi nga xam ne dañoo dëdd àdduna suñu borom xaral ne àjjana si daw si mbokki sénégalais également fépp pour leen mënti nekk ah ci gox yi gën sori ci Sénégal ah dem Fouta Bakel Touba Medina Baye Kaolack fàttuñ fenn Gaël ah ku lim ah, di nuyu ñëpp également Africa, Afrique ah, donc euh, muy Maroc du Mauritanie du Cameroun Guinée Gambie fépp Banyu, également mbokk Sénégal Nek, nekk Afrique Europe Amérique États-Unis Bruxelles Italie Canada ñi ngi jaajëfal aujourd'hui actuel de gars on va parler spécifiquement ci li nga xam moy nan Sénégal di jouer point fort équipe nationale du Sénégal lan point faible équipe nationale du Sénégal jëm également match joué contre Égypte mais aussi Sénégal coupe d'Afrique. aussi nga peut être ci match rectifier également comme je dis en hein. question réponse dina démarré mais VAR actuellement vu que le Sénégal dañuy wu ci information ak également dañ ci wax ci information également laaj bi dem ci jottali génn ñoom li ñu wax mooy que ne léegi ñoom bii disponible na ca fa xam mooy ca jëppal pré commissariat liberté 6 bi ak jolof ci bi léegi nag nee na ñoom du ñu jaay lu ba léegi bu juddoo Bordeaux fa xam mooy ci Cameroun moom li soxla mooy Kylian Mbappé yoo xam ne ña ca Cameroun juddoo foofu noonu ndax gëm na ne am na potentiel yoo xam ne am na foofu te loolu loolu laa gëm merci aussi à ki xam mooy Samuel Eto'o pendant ce surprenant gis Côte d'Ivoire bii nii demul coupe du monde day montré que ne di nga xam mooy barrage coupe du monde yi ci Afrique nekk na loo xam ne lu métti la loolu notamment yoo xam ne gën na métti sax la yenn dëkk yoo xam ne ñu ngi ci Europe pendant ça également Eriksen depuis juin le gëjoon a joué ci coupe d'Europe donc mon démb dafa Dugu contre Hollande C'est un match amical bien donc Dugu euh, quelques secondes après Moudari daal di dugal Eriksen lui également hein. bonne chance par la suite parce que là Le nerf là pendant ça également le meilleur buteur européen Qui euh, club yi équipe nationale pour notre Europe depuis 2020 Moi qui di même depuis 2018 plutôt fils Memphis Depay parce qu'actuellement il est à 20 buts Même Memphis Depay le Hollandais Beaucoup actuellement le meilleur artificier des pays européens pendant Sénégal également di Cristiano Ronaldo moom lañ taar mu nekk homme du mois jour du mois fa nga xam ne mooy ci Manchester United mois de mars hein, Cristiano Ronaldo CR7 nga xam ne ko joon a dugal mais temps yi dafa commencé waat yeewu donc CR7 donc moom lañ jël jël ko jour du mois pendant ce temps aussi au niveau de l'Angleterre toujours dañoo def match de gala ancien joueur FC Barcelone ancien joueur Liverpool ki nga xam ne donc mooy Salif Diao bokkoon na ci ñu waa Barcelone bu Rivaldo ñoo leen mujjee doo deux buts à un ki nga xam ne également mooy Steven Gerrard moom moo dugal aussi biu nga xam ne mooy donc waa Liverpool pendant ce temps également règle cinq remplaçants yi gars yi boo matul dañ koy appliquer ndax dañ koy continuer mais fi mu ne nii FIFA ak yeneen nga xam ne mooy yeneen club yi qui sont Champions bi ñu ko maintenir pour de won règle 5 changements daal di des bañati génn pendant Sénégal temps Angleterre jël beneen ndogal mooy que ñi nga xam ne dañoo joué jugee Russie ak Ukraine nga xam ne ñoom dañ leen waxoon mun nañ jugee foofu dem si yeneen championnat yi waa Angleterre na ñoom duñu ñu accepté benn joueur bu jugee ci Ukraine wala ci Russie ñëw joué foofu noonu loolu tax na nag mauvaise nouvelle pour Moses Moses mi nga xam ne Burnley moo ko bëggoon na jënd am actuellement ba ñu bëggoon avancé beneen anglais boo xam ne du ma ne sax anglais brésilien bu joué ci Angleterre muy ki nga xam ne mooy donc Thiago Silva Thiago Silva Hall of Fame Maracana donc ca Brésil donc di nga xam ne dañoo jël entraîneur def ko ci Hall of yi comme légende du football foofu nga xam ne Brésil également si stade bu Maracana Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa gars yi nouvelle moyenne que ne boo méttul moom sélectionneur bu Bolivie momi mi nga xamné ay temps entré na fi équipe bi di Argentina bañu gagné une woon li nga Jeux olympiques entre autres donc momi donc euh, Copa America donc euh, momi di Marcelo Bielsa donc euh, dañ dem entraîneur fofu ki nga xam moy mooy Mesut Özil xam nañ la motax wa waa Fenerbahçe di koy dàq mom nañ dafa jot ak entraîneur entraîneur intérim bi nek fofu non motax ñu dal di fay pendant ce temps également du côté du Paris Saint-Germain qui di Marquinhos Marquinhos nga am ne joxe na accord de principe pour prolonger Paris Saint-Germain pour 2026 mais actuellement li des moy wàllum koppar gi manum gafa gi comme Comme gi la ñu déggoogut mais principe bi ki di Marquinhos day des Paris Saint-Germain pendant ce temps également ki ngeen gis ni Romain Saïs Des joueurs marocains Avec ci Wolverhampton Mon actuellement donc que mon contrat am lay jeex fin de saison il va partir libre ñu ngi wax ne Marseille sax bëgg na pour renforcer La nga défense Romain Saïs et du côté de l'Espagne nos joueurs du Real de Madrid hein, ki ngeen gis donc Marcelo ak Dom Demou.

entraînement ils étaient tous au complet à part Abdou Diallo mi donc selon les informations il est forfait nga équipe équipe di donc Égypte ci loolu nag gaay tax na nag actuellement tey bi actualité bi bok dañuy wax ci li nga xam aussi moy jëm ci match équipe nationale du Sénégal donc point fort ak point faible donc dañuy commencer point fort équipe nationale du Sénégal buñu commencer ci point fort équipe nationale du Sénégal gaay yi li ñu wax moy que né Sénégal d'abord système bu 4-3-3 lay jouer donc ça c'est le système de jeu bo xam ne léegi Aliou Cissé maintenir mais également système la boo xam day tax nga mëna am parce que système 4-3-3 boko ko day permettre déjà de nga mëna de un ngay mëna jouer ci li nga xam moy donc euh, surnombre devant parce que sa ñaari ailier bu ñëk ay ailier xam dañoo rapide ak également ñaari arrière latéraux wax dañuy yéeg lu bëri loolu day permettre chaque fois nga mën di décrocher di mën a dem en profondeur di créer donc surnom bi donc là c'est un des avantages du système de 4-3-3 mais également 4-3-3 bi dafa am assise assise défensive boo xam da jox Sénégal parce que avec nos deux axiaux muy ki nga xam ne mooy Kalidou Koulibaly beneen côté bi nga am ki nga xam Abdou Diallo Lolo, d'aller apporter une certaine assise parce que qui est droitier quelqu'un qui ki gaucher et qu'on également Il y a une position pour ramener ce pied de prédilection côté également on a deux arrières latéraux ramener également offensivement et défensivement ils ont cette capacité de porter la balle et au niveau du milieu de terrain tu as trois milieux de terrain ils sont censés je précise ils sont censés déjà nek li lien entre le la défense et les milieux mais également bloquer euh, les ramener les transitions offensives de l'équipe adverse mais aussi di permettre gars de aussi moi de projeter vers l'avant nous attaquant yi décrocher ñaari arrière euh, plutôt ñaari excentrique également du mëna chaque fois de jouer ci dédoublement maintenant on gars li ñu wax pour par rapport équipe nationale Sénégal ci li nga xam japp na né man bok moy suñu point faible damay jox ay statistiques yo xam di nga ko gis après ci ay images parce que aussi comme bu wax ji bëri na li wax rek ñu chaque fois li ñu def moy jox suñu analyse et comme je dis c'est une analyse subjective ça nous concerne nous ñu lool la donc ku nekk mën nga joxe sa xalaat mais on a rien contre ben joueur wala qui que ce soit li ñu mën wax rek moy que Sénégal tay point yi nga xam moy point fort moy suñu ñaari eh, li nga xam excentré moy Sadio Mané d'un côté ak ki nga xam également moy ki di Ismaïla Sarr de l'autre côté parce que deux premièrement ils sont très rapides deuxièmement également ils sont capables déjà de jouer à 1 contre 1 même 1 contre 2 de user vitesse côté gauche également on a un certain salusis. si les mi gars vous faites que ne vous ko ci condition yu bax, Vous faites benn football entre guillemets bo xamné ñom mën nañ déggoo est très important défensivement et offensivement et que loolu lañ amone ak Abdou Diallo malheureusement bi xam dafa blessé Abdou Diallo sortie de balle relance yi moom ak ki nga xam ne Kalidou Koulibaly bokk nañ ci défenseurs yi gëna a ay relance donc moom côté gauche bi da doon permettre également ki nga xam moy ki di Salisu gëna mëna décrocher et du côté droit on a également ko amené ne moom donc qui est bon sur les duels au sol donc li nga xam moy xéxu bali ci souf Bouna Sarr da ci ay également mëna na projeté wu dans l'avant vers l'avant vous bu féké nek na ci condition optimale bu féké né am temps de jeu bu doy aujourd'hui moy le problème de bonasar Sarr dinañ ci après mais quand même défensivement bonasar a apporté apporter offensivement également il peut il peut apporter mais y a des déchets yo xamné mom moom lañ gis né jamono ji liko waral moy manque de temps de jeu mais il est excellent et également li nga xamné mom manqué Sénégal moy que ne le lien mi nga mais entre le milieu de terrain et l'attaque et aussi entre le milieu de terrain et la défense parce que tey bu ñu seetee équipe nationale Sénégal ni jouer joué Pape Alassane Gueye l'autre important ci système 4-3-3 ba Aliou Cissé dans le système de 4-3-3 tu as besoin d'un milieu bo déjà c'est un milieu bo qui sait jouer dans la verticalité mooy projection vers l'avant mais c'est un milieu également bo quand ton équipe bu sekkee ne cette équipe dafa en danger moom dina a orienter vers l'autre couloir et pendant ce temps également benen côté bi nga am koo xam mu côté droit bi Youssouf Sabali Youssouf Sabali avantage avec ak Bouna Sarr mooy Youssouf Sabali arrière latéraux je précise muy Aliou Cissé alors aléatoire yu ñu mën ki nga xam ne mooy sabali mo moo leen complet lutax mu complet parce que mom il sait jouer du côté gauche il sait jouer du côté droit ñaari pied yëpp day dem donc mom bu fekkee ne da ngay jouer sur les ailes et que ñu fermer la comme ni nga xam ne El non noonu la defoon ki xam ne mooy Saliou wala également comme ni ki nga xam ne Trezeguet sonné loolu ki xam qui mooy sabali d'une kii di euh, sabali dina mën décrocher vers l'intérieur parce que bu duggee vers l'intérieur premièrement day permettre li nga xam ne sa milieu terrain mën a élargir seen jeu bi mais deuxièmement également day mën a permettre aussi dédoublement mën a am et que défensivement Saliou plutôt sabali est mieux loti que ki nga moy bonne sa parce que Salou kii sa défensivement dafa offensivement dafa bax di équipe nationale ba légui bok bon équipe nationale ba légui kenn match bu bon bon. def et aujourd'hui équipe bon bétis la nekk muy Betis aussi boo xam football espagnol ko xam ne xam na ñoom lépp luy téebal lépp luy orientation dans le jeu lépp luy dédoublement dañ koy def également seen centre c'est des centres précis alors que aujourd'hui Bouna Sarr comme je le dis il est excellent parce que mais quand même ce qu'il faut pas oublier mooy que Bouna Sarr à la base c'est un attaquant boo xam ne dañ ko reconvertir mu nekk défenseur te kii ko defoon dama koy waxaat encore une fois mooy donc l'entraîneur de Marseille moom moo ko defoon Eric lui kii Garcia moo ko defoon bokk ah moo ko defoon jël ko teg ko li nga xam ne défenseur mais moom attaquant loolu alors que ki nga xam ne nag donc qui dit Youssouf c'est un défenseur de métier formé au Paris Saint-Germain Ligue M donc il est un défenseur arrière latéral Bon ramener côté droit fait jouer mais aussi offensivement il apporte beaucoup donc dans le match contre le Sénégal li moy suñu problème ñun moy que tay on a un Nampalys Mendy boo xam ne tey moom mooy joué li nga xamné moy euh, moy jouer pointe basse li sa Gana Gueye doon jouer, loolu la ki nga xamné moy mooy Nampalys di jouer Nampalys chaque fois avantage Nampalys Mendy par rapport ak défense Sénégal moy que chaque fois mom deuxième balle bu ko défenseur yi génne il a cette capacité ñeu jël ci balle bi parce que milieu de terrain maintenant bu ko indi milieu de terrain bi suñu problème moy lan moy que ne su ñaari milieu de terrain défensivement ils sont excellents défensivement Kiri di Cheikh Kouyaté également Sadio kii di ils sont excellents mais hyper excellents amuñu mi défense bo xamné milieu défensif yu leen baax mais problème bi moy lan moy que ne Idrissa Gana Gueye il ne peut pas jouer do au au but manam Idrissa Gana tay pour mu mëna football day jakkalo camp yi mëna a jouer li nga xamné moy point fort mais bu féké da jël jox ko li nga xamné ne rôle de 10 nga bëgg muy wane chaque fois suñu milieu adverse bi ginaaw bëgg di retourner wu amuko ki am capacité bobu non moy ki nga xam Pape Alassane Gueye et Pape Alassane Gueye avantage encore une fois il me di mooy que day équilibre équilibrer milieu de terrain bi parce que milieu de terrain bi booy seet benn côté bi droit la beneen côté bi yëpp suñu milieu de terrain droite ay droit ci amul benn gauche alors que tey boo indee Pape Alassane Gueye dina permettre Saliou premièrement bu fekkee El Nini ni mu joué woon bi passé do lay joué waat dina ko permettre Saliou Ciss mën a décrocher jox Pape Alassane Gueye Pape Alassane Gueye il peut également orientation milieu parce que loolu mooy forum jouer dans la verticalité passe en profondeur dina permettre également décrochage yi gars yi di laaj ci ki nga xam ne mooy Famara Diédhiou bu ko Famara di def dina mën a permettre en même temps kii di Sadio Mané ak également kii di Ismaïla Sarr mën a jouer li nga xamné moy en profondeur parce que tay Sénégal boy set bo jiyee coupe d'Afrique 4 quatre premiers matchs yi ci coupe d'Afrique bi ñun on a joué 216 balles yoo xam passe longue la def 216 balles yoo xam ay passe la def dans la profondeur et yiñ def dans la profondeur 53% trois ay balles aériennes manam maanaam ñun dañuy xalab Sénégal bo amul problème ci milieu de terrain bu amul solution rek ki nga xamné moy donc ki di Abdou Diallo wala boo ki di kii Kalidou Koulibaly dañuy xalab bal yi pour dem ci ginnaw donc loolu day permettre que ne défense égyptienne yi dañuy tok ci seen base dañuy tok seen assise lu ñëw ñu sanni génn lu ñëw ñu sànni génne loolu nekkoon problème également Bouna Sarr match bi passe mooy Bouna Sarr day day sànni rek mais du centre. Centre mooy lan nga def ko ci zone boo xam zone dangereuse le ci ci défense adverse Moi, mooy que goal bi du coup jot mais également say défenseurs yi dañuy mën a loolu lañ am ak ki nga xam ne mooy Kalidou Koulibaly ak ki nga xam ne mooy donc kii di Pape Abou Cissé seen i équipe dañuy dugal par balle dañuy dugal balle boobu notamment Pape Abou Cissé donc balle aérienne yi suñ koy jouer normalement muy balle arrêtée yi suñu centre ñu koy assurer mën nañu jom égyptien yi ci seen li nga xam ne mooy si si balle offensive yi aérienne mën nañ leen gagner parce que déjà seen ñaari joueurs yi ci aay muy ki nga xam ne mooy donc elle El Monem ak également Mech ñoom ñaar ñëpp duñu joué match bi di et loolu moo nekkoon suñu avantage ben ne amee ki nga xam ne mooy donc aujourd'hui amuñu Karamboj mais amène pas abusé. Amène Cissé am nañ tey ki nga xam ne mooy Kalidou bu dañuy donc amène également Cheikhou couillaté. donc balle aérienne mon mën nañ ko utiliser beneen problème mooy balle arrêté yi amuñu kuy dóor coup franc tey ki ñuy dóor coup franc kan moy ki nga xam donc il Gana Gueye n'agé. Pas Sarr mën na dóor mais malheureusement pas Matar Sarr mënatul dugg ci équipe bi parce que amul temps de jeu bu donc coup franc yooyu ñuy vous bu fekkee ne tey am nañ benn Sabaly boo xam aussi mën na dóor franc am Idrissa Gana Gueye boo il les assure mais buñ ko assurer aussi nañ koy def foo xamné suñu joueurs dañ koy jot et pour moi aujourd'hui c'est le problème du Sénégal le Sénégal problème bi am mooy déjà moy amuñu milieu bo xamné moy nek lien entre la défense et l'attaque bal arrêté yi dañ koy vendanger amuñu du tireur de coup franc ki ñu am tireur de coup franc mu lénn nan day dugal coup franc actuellement ñu gëm ne day dugal ay coup franc mooy kan moy Pape Matar mais amul temps de jeu il faut être d'accord Pape de Sarr mën na dugg coup mais amul temps de jeu et l'équipe équipe bi ñu on a besoin d'avoir un milieu de xam de bali vers l'avant, jouer au sol Sénégal c'est un problème contre Guinée loolu la Guinée def dañu on a xaar ñuy xalab bali di xala bali rek donc gars yi dafa nek lo xam donc tay gars limay wax moy que duñu du ñu entraîneur Aliou Cissé entraîneur mais aujourd'hui Sénégal bu féké dafa bëgg a teel Égypte il faut que ñu am benn milieu bo xam moy nek client bobu et Pape Alassane Gueye par rapport li Sénégal bëgg jouer mom moko mëna indi actuellement au vu de l'équipe nationale du Sénégal li ñi def mais aussi mo gëna compatible ak salu Ciss mais également côté droit il faut que sabali jouer parce que sabali offensivement défensivement mo gëna a ki nga xam moy Bouna mais également demi décroché à l'intérieur dina mëna permettre ismaël sa gëna am espace mëna dugg mais aussi loolu day permettre li encore une fois Salu Ciss pour mu mën jouer il faut que mu am ko xamné tay moy mooy mën di am ak mom dédoublement parce que el néni liñu ñu bi passé loolu lay jouer donc Aliou également buñu ñuy seet suñu joueur li ñuy bali pour man boy seet li ñu coupe d'Afrique consigne la donc dañu dem ba nekk ay réflexe mais buñu jotté balle bal une suñu joueur dañuy woon dos au but li nga xam moy suñu suñu suñu centre parce que dañu naan automatiquement ñun dañuy sanni vers l'avant en tout cas les gars c'était l'analyse que je voulais faire joxe leen seen avis woy leen di like woy leen di abonné et tous au stade le 29 ja ngeen jëf